jërë ngeen jëf euh, yéen suñ mbokk internet bu Dakar People ñu ngi leen di nuyu di leen di char bu baax di leen di jaajëfal di dellowaat ku nekk euh, sa wàccuwaay amaat li di kontaan ak mbégte bu baax a baax nag comme ni ma ko faral def kilifa yëpp tey ma fas yéene jàkkaarloog beneen kilifa ñu waxtaan ci xam-xam acca tey ci may dalal kay moo di Serigne Ibrahima Niass nee naa leen jëmb jooj ngeen di gis kenn du ko présenté ti na koo xam ne ku ràññeeku la ci biir internet bi acca tey nag fas yéene ne ñoo waxtaan ci xam-xam xuus waaye xew-xew jamono di actualité kenn du ko fàtte ndax di ay de njàmbat mu di kan bi nga xam ne war naa dox ni ki suba dinañ ci waxtaan bu baax a baax yaatal ci sama programme dinaa ci ñëw laata ma ci ñëw damay bàyyi Serigne Ibrahima ñas mu nuyoo mbokk askan bu Dakar People baada auzu billahi min alsheytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala asrafi alanbiya sayiduna wa nabiyana wa xabibana wa qudwatana muhammad ibn abdillahi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ayuha almustamicuuna alkiram ayuha al ahlu fi dunia ayuha al ahlu fi généralia afdalu taxiyatan islaam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki internet yëpp mbokki Dakar people yéen ñëpp tabaarakallaahu ñi ngi leen di ziar di leen nuyu kenn ku nekk di la jox sa wàccuwaay di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. tarkalla jërëjëf euh, Serigne Ibrahima ñas ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaane ginnaaw seni yoo set yooyu tànd ak dal ñu ngi ciy kontaan bu baax a baax dinaan la dalal jàmm acca tey nag fas yéeneen ñu ñoo waxtaan ci xam-xam ni ma koy waxee saa su nekk waaye dama koy jël xaaj ko ñaari pàcc su ma ko defee ñaari pàcc lenn dama ko yóbbu ci ñaan bi nga xam ne yaa ngi koy faral di def ba ñu bëri rafetlu ko waaye lenn dama dellusiwaat yóbbu ko ci pàcc bi nga xam ne yaa ngi ci yëngatu ba ñu bëri eh, di seede preuve bi nga xam ne yaa ngi koy def xew-xewu jamono tey daa am foo xam ne foofu la namoon ñu tàmbalee sëñ Ibrahima. mu di comme que jàkkaarloo naa ak yow dina dina damaa bëggoon nga wax ñu kan mooy sëñ Ibrahima fu mu soqeekoo fu mu jànge ba dugg ci ñaan bi mooy def ak paj bi yow yaay kan maanaam pour ñi lay seetaan. waaw alhamdulilah xam naa wax sa bopp du yomb wax yow yaay kan loolu du yomb waaye nag yaakaar naa fi ma bokk moom su ma ko waxee ñëpp danañ xam ne kii fi mu bokk fii la. alhamdulilah maa ngi bokk ci xadaratu lew na ñeseen Kawlax juddoo fa yaroo fa jàngee fa euh, xadaratu maam alxaaji abdullahi ñes radiallahu anhu maam alxaaji abdullahi ñes mooy sama maam mooy jur mboolem lu sant ñes diggante cheikh al islam xaaji ibrahima baay ak maam xalifa ñes radiallahu ak mbooleem njabootam gi maam alaaji abdoulaye ñes moom mooy fonde lépp lu sant ñes ñi du la sukkal di la raamal di la jox addiye maam alaaji abdoulaye ñes moom mooy suma maam ci famille boobu laa bokk waaye maam alaaji abdoulaye ñes jurut ma waaye moo jur xalifatu alxaaji muhammad ñes radiallahu an maam xalifa ñes mooy sama maam ndax maam xalifa Niass moo jur Sidi Lamine Niass bu wal fajiri ak Ahmed Khalifa Niass yaakaar naa suñ leen waxee doy na ñoom ñaar maam Khalifa Niass moom moo leen jur maam Khalifa Niass moom jur leen jur Sidi Lamine Niass ak Ahmed Khalifa moo jur sama wayjur Mawlaay Cheikh Alxaaji Babacar Niass radiyallahu anhu mhm. sama wayjur Xaaji Babacar moo nekkoon ñaareelu xalif général bo lew na ñeseen moo toogoon ci 1997 98 99 2000 yaakaar naa ñeenti at la fa def mhm. làqu génn àdduna mhm. alhamdulilah rabbil alamin ñi jàngee ci roon keppaaram daaraam mhm. waaye mu tuddee woon ñu rakkam ju baax ji Cheikh Alhaaji Ibrahima Khalifa mii nga xam ne daaw jéeg la làqu nekkoon ci xilaafa gi moom i tamit moo ñu yar jàngal ñu def lépp lu lu nekk ci ñun rek alhamdulilah rabbil alamin nit ñi di ko naw di ñu kam alxaaj Ibrahima moom moo ko def ndax bi suñu waajur di génn àdduna boobu lu ci ëpp daanaka xaj na boobu taxale lañ lu toll ci def daara waaye yu ci ëpp ci yarin ak xam-xam bi zaahir ak baatin Mawlaay Cheikh alxaaj Ibrahima ñes ci lañ ko doon ni ci lañ ko yu baree baree baree baree jël jël suñ Ibrahima daal su doon gàttal mi ngi bokk ci xadaratu lew na ñeseen mm-hmm. Kawlax kër maam Xalifa ñes radiyallahu jërëjëf euh, Serigne Ibrahima Niass mu mel ni leer na naañ ci leeral yooyu noonu am na solo foog naa ci bàyyi xel di déglu euh, fa mu daaneele ak euh, fa mu jot a am na loo xam ne moon ngeen faa jëlee comme njàngat leer na nañ atia waaye foofu laay sembe ci sa biir wax ne la bëggoon naa xamit ni ngay ci nan ngay ñaane ndax ñaan donte bëri na yaatu na te ku jóg léegi da ngay ñaan nan ngay ñaane yow. waaw alhamdulilah yaakaar naa man ñaan dama ko doon. ci laa ko jël maa ngi wax léegi maam Alaaji Abdoulaye Niass maam Alaaji Abdoulaye Niass ku amoon sa soxla ak xaaju ci Alaaji Abdoulaye Niass nga daan dem ba mu fi jógee taawam ba Mawlaaya Cheikhul Xalifa Aji Muhammad radiyallahu anhu moo ko jël doon doon ko maam Khalifa Niass tolloon na ci maqaama parce que ñaan yàlla ñetti façon rek moo am ci ñaan yàlla. Mhm. dafa am ñoo xam ne ci wilaaya la ñuy ñaanee yàlla. boobu moo gën a kowe. Mhm. am ñoo xam ne ci lijaaba la ñuy ñaanee yàlla boobu moo ci topp am ñoo xam ne mbind ci la ñuy ñaane yàlla hmm. wilaaya la ak lijaaba ak kayfiya hmm. beneen bi mooy kayfiya kayfiya mooy xaatim nit ñëw wax la soxlaam hmm. nga ñëw bind ci li nga xam ci ay alquran fekkee am na ay ren ak sunguf nga jël ko jox ko ko boobu moo gën a suufee beneen bi ci topp mooy wilaaya wilaaya ak lijaaba bokkuñu wilaaya mooy ki nga xam ne yàlla da ko may wilaaya su toogee téye kurusam nga ñëw wax ko sa soxla mu def ay naafileem ñaan tàllal loxoom ne yow yàlla maa ngi lay ñaan diw mi ak diw di doomi diw soxlaam yi yàlla nga ko faj mhm. yàlla day faj soxlaay kooku loolu mooy wilaaya kooku moo gën a foor birom borom borom xalima bi borom lijaaba nag moo ëpp doole ñoom ñaan ñëpp borom lijaaba nag moom ngay ñëw tiim ko rek wax ko na ko man de damaa bëgg sama soxla yi nangam ak nangam faju mu ne bi xawlillaahi wa quwwati insha allahu rabbi damal yàlla dana faj sooy lu mu wax rek yàlla ànd ci lu mu wax rek la yàlla ànd ca loola ko daanaka du ñaan mhm. lu mu wax léeg-léeg sax mus nga sori lool sori ko mhm. lool mhm. munoo koo jot sa xel daj ko ne ah man de billaahi maa ngi am soxla si maa ngi ñaan yàlla ci dara jaay diw yow yàlla yow laay ñaan ci maqaama mi nga rangal diw ak darajaam maam alaaji Abdoulaye wala Serigne Touba wala maam alaaji Malick ñii nga leen rangal yaa leen jox li ñu xam seen pouvoir ak seen nanga maa ngi lay ñaan ci seen daraja diw mi yàlla na yàlla faj ay aajoom sa xel dem ca Serigne booba rek sa aajo faju xam nga alaaji alaaji maam alaaji Abdoulaye Niass borom mm-hmm. wilaaya la mm-hmm. boroom lijaaba bala cheikh ahmadou bamba xaadimu rasul borom wilaaya la borom lijaaba la alhaaji malik si borom wilaaya la borom lijaaba ñoom nekkuñ fi waaye nit ñaa ngi si fajoo seen soxla ba léegi bala nga koo xamoon rek nga def léegi sa faate ak lexlaas addiyal leen ko daal di a a borom lijaaba nag fa jógee lijaabaam nga dem na borom xalimba su fi jógee xalimbaam nga dem alhamdulilah jërëjëf euh, sëriñ ibrahima ñas ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci ni nga koy décortiquer mu mel leer na nañ acca dañuy dox ba léegi wéndi des ci Dakar People dama ñëw ci beneen ponk ndax mënoon naa ne sax mën naa faa tàmbalee waaye lépp euh, ci sotti ceeg def ci la rek euh, ci mbirum listixaar ci laa bëgg ñu ñëw ak di nga ciy jëflanteeg jaamu yàlla yi man de bala maa ñaanal nit kenn dinaa ci def listixaar listixaar moom ala kulli nit ñëpp xamee nañ ma ko alhamdulilah rabbil alamin senegal yëpp miin nañ ma ci loolu wax naa ne am naa fi ay kilifa yu mag yoo xam ne ci réew mi ñi ngi jëflante ak man ñoo xamante ni bëgguma tudd seen tur am na ñoo xam ne sax dama dégg ñu ne ma sëñ bi yow del tudd sama tur su la neexee jel kii man waaye du ma ko def <laughs> ndax nit ñi bokkuñu uh-huh. euh, alhamdulilah rabbil alamin daan naa ñaanal yàlla daan naa wax sax fii ay émission bi may taxaax sama jumaa ji ma ciy wax coon sekk mhm. yal na ko xare ko aljana sama nit la woon sama wóllëre woon ci lu bari ci ñaan dama ko daan tudd sax waaye su nit ñi ko xamaan ci ay journaliste daan toog man ñoo daan ba àgg ma ci question boobu mhm. waaye du ma ko tudd ndax lu tax ma tudd ko sax jamono ji mooy li nga mooy nekk fi génn na àdduna waaye ak njabootam ak ñëpp mhm. seede nañ loolu ndax yaakaar naa bari xam nañ ci sama diggante dama koy def su ma koy def damay laaj nit ki xaalis waaye xaalis bi ma koy laaj du ci man la jëm. Mhm. ndax deux mille trois cent cinquante laay laajee sama loolu moom damay taxaw ci caméra di ko wax ki nekk mhm. ci réew mi ak ki nekk ci bitim réew. ki tiim ak ki sori ñëpp ñoo yem leen ni may defee listixaar. mooy deux mille trois cent cinquante ndax deux mille du man maa koy lekk. Mhm. waaye soo ma koy joxee. dama ciy jëndi sondeel juróom-ñaari sondeel juróom-ñaari almet juróom-ñaari mètre percale yooyu suñu ko calculé day tolloog deux mille trois cent cinquante mooy tombeeg loolu ñu def ci mhm. liñ ciy def ci xaatim gi mhm. nga wax ñu li nga tudd ak sa turu yaay ñi jël ko def ci xaatim fanaanoo ko suñ xëyee lu ñu ci yàlla woon rek mhm. suñ la ko waxee xar-xaru daj da ngay mel ni ku dëkk ak ñun suñu defee listixaar na ba pare wax la nga ne ah alhamdulilah gis nga ma léegi nag damaa bëgg sama soxla bii ma lay wax nii damaa bëgg nga defal ma ci ñaan yàlla duma ci laaj nit mukk mukk mukk benn dërëm benn nit musul wax ne sëñ Ibrahima Niass mos na maa laaj ñaar fukki dërëm wala juróomi dërëm ci ma ñaan yàlla musul am te incha allah bi xawlilaa wa quwwati du am ba mukk waaye nag nit ñi danañ am yéene seen soxla fekkee listixaar bi dafa am sarax bala ma laa defalal dara sarax yooyu moom dañ koy génnee ba pare moo xam yow yaa koy génne moo xam sa mbokk a koy génne moo xam keneen a koy génne moo xam ñun nga koy sant a ku di doon rek su sarax yooyu génnee ba mat fekkee daf caa am la ca def ci suñu xalimba ñi bind yónnee la foo xam ne bitim réew la ñuy CP wala sa mbokk jël si ko su fekkee ci réew mi la suñ ñëwee ndakaar nga ñëw jël si ko li ci des ñi tëju tée suñu kurus ñaanal la yàlla incha allah bi allah xóoti heure bu ñu ci defee rek yàlla ngi ciy may ndam ci buntu yi daal la ñuy defee ñaan yàlla alhamdulilah dina ngi ci topp ci Dakar People ñu des ak euh, kii di Serigne Ibrahima Niass ñu koy laaj muy tontu yéen ñi taatan di ngeen am lu ngeen ñu ndax moo doon suñu yëg-yëg moo tax ñuy sonn aca euh, ni ma ko saa su nekk ko ci soxla rek numéro ñu ngi doon affiché suufu baar d'écran bi saa boo ko contacté dina jëflanteeg yow ba gis ci lu gën a taf féexe sa njort wala lu gën a euh, am solo ni ma ko saa jigéen dama ñëw ci beneen ponk sànq maa ngi euh, dégg ngay waxtaan bay dugg di wax mbiram juma euh, ci juma jooj ngay wax noon lan nga ci bëgg a yaatal ndax maa ngi doon dégg ci fan ci ginnaaw ngay wax ci juma maanaam fan la toll. waaw alhamdulilah dañoo am terrain Kaolack. Mhm. jënd ko ci suñu alal. lu toll si presque ñaari million ak genn wàll. Mhm. Euh, gox bañ ko def ñuy wax daaru Ridwaan suy dugg ci Kaolack ci yoonu dakaar bi. ñi namm cee def jaamu yàlla def ko jumaa ndax fañ ko jënd yàlla may nañu xéewal ñun mhm. euh, fiñ ko am soxla nañ jumaa lool te fi ñuy koy jullee si ku xam jumaa ji ñu wax jumaa Ndiouga Kébé ak Daaru Ridwaan fi mu nekk diggante boobu sore gi mu mhm. mag ñi duñ mën a dem góor ñi jigéen ñi ngir sori diggante bi sore gi mu soree duñ mën a dem comme yàlla def nañu ay doomi kilifa lañ doomi nit ku baax lañ ci Maam Alaaji Abdoulaye Niass lañ wax lañ soqee ko te daana wax ne fii xadaratu Léona Niassène lenn rek mooy fale mooy jukki bi jukki bi nag mooy kaamil bi mhm. comme yàlla dimbale ñu rafetal nañ ko alhamdulilah yàlla may ñu wërsëg nañ taxawal ñiy defal leen jumaa jooju du jumaay seen Ibrahima du jumaay lew na du yi dara jumaay yàlla la ak gox bañ koy defee. ñi def loolu dem ñaan ci ndigal suñu xalifa bi mooy suñu papa. moom suñu xarit la muy Baye Cheikh Ahmad Tidiane xalifa ñes muy xalifa général bu lew na ñeseen. ma dem toog ak moom. expliquer ko mu ne ma ah lii de encouragé naa la ci gaaw léegi ñi def ko. ma ne ko ah sëñ bi jàmp na de da dooma may tuuti mu ne ma nañ ko nañ teg xeer bi léegi man maay jóg ñi dem teg xeer bi mhm. ma ne ko kon may ma nag ma muwal pelin yi nga xam ne su ngeen ñëwee da ngeen fa fekk dara mhm. mu ne ma waaw loolu nag bu mu yàgg diiru juróom fan fukki fan laa koy dem muwal la nga xam ne mooy pelin yi yëpp teg mhm. moom mu taal oto ànd ak xadaratu lew ni ñu seen yëpp ñëw ca gox booba ñi teg xeer première pierre loolu yàggul ñaari weer lay tolloog alhamdulilah rabbil alamin fondement ba pare na ba yëkkati ba sori na lool ñu ngi ciy sant yàlla bu baax toujours sëriñ baa may wax naan ma nañ gaaw ndax ci biir koor gi dama bëgg ñu ubbi ko loolu nag jaam yàlla yi nga xamante ni ñooy siq ak man ñaan yàlla mhm. ñoom ñoo koy def ci man parce que lu ci ëpp ñoom biñ ko yëgee kenn ku nekk da nga yëkkati sa alal rek di ci yónni mhm. kenn ku ne da nga yëkkati sa alal ñii naan feer laay def ñii naan ciment laay def ñii naan nangam sant yàlla ndax jumaa ji mi ngi toll ci fanweeri million moo koy moo koy moo koy taxawal alhamdulilah rabbil alamin yaakaar naa fi ne nii bañ xoolee mujjee xool suñ bit ñu ngi ci neuf millions loolu sant yàlla kon des na ndax mhm. li ci mujj yu ci mujj mooy gën a seer lu mel ni buntu yaag karo yaag nangam ak nangam yooyu moo gën a seer mhm. moo tax ñu ngi ciy tàllal loxo jullit ñëpp Mm-hmm. jullit ñëpp ci àdduna bi yëpp ñu ngi ciy tàllal loxo di leen wax kenn ku nekk na ci dugal loxoom alhamdulilah ku ci dugal loxo mm-hmm. yàlla dugal sa loxo incha allah bi xawlilaa jërëjëf kon acca woote baa noonu maa ngi ci li ma ciy wax rek képp ku dégg woote bi tu numéro ñoo ngi noonu di daw ci suufu baar d'écran bi néeg ba néegu suñu borom la euh, ñëpp ko bokk lu ci waay am rek defal te yàlla tax kon dinaa si ñambaasaale leen ci néeg ba mm-hmm. keroog bi may jënd terrain bi maa ngi wax coon sekk léegi daf ma woo téléphone fekk ma toog la terrain ba mu wax ma am lu may wax ma ne ko ah nañ sant yàlla terrain bii damaa ngi ni juboo nañ léegi jumaa ko nam ma def mu ne ma incha allahu xam nga ni muy waxee ak dët bi mu ne ma incha allahu rabbi dinaa ci def sama doole ba famille yeggee incha allahu rabbi loolu bi mu waxee loolu yàlla dogal sant yàlla bu baax bi ñuy teg xeer bi fekk ko fi fekk ko fi waaye keroog bi ñu koy teg yàlla xam ne ne xalifa baa ngi toog maa yëkkati lu toll ci une tonne ciment ne lii de moom une la maa ko def doxal ko coon sekk ci bàmmeelam pour lam yéene woon ci moom alhamdulilah rabbil alamin yàlla yàlla fekk ko doole ca loolu rafet na jërëjëf acca dama ñëw ci sànq maa ngi dégg ngay wax bay wax euh, sarax njëriñu sarax lan ngeen ci mën a wax waaw sarax ci doom aadama ci wàllu ñaan yàlla ñaan yàlla daal tey suñ la ko doon wax dañuy wax ne maanaam sarax euh, nit ku nekk ci yoon la sarax ci ñaan yàlla su fekkee dañoo def listaxaar nga gis sarax nga ne ah nit kii de mi ngi ci yoon wi di dem su fekkee ne da ngaa jógee fii nii di dem dem ba jam ñaajo nga fekk sa ñaari yoon bii ngi jëm Kaolack bii jëm Thiès nga fekk fa benn gendarmerie bu taxaw te yow xamoo yoon yi yaa ngi bëgg a dem Kaolack te mm. xamoo yoon yi nooy def da ngay laaj kii ne ko ban yoon moo dem Kaolack mhm. mu ne la yoon bii la soo ko toppee da nga dem dëkk bu ñuy wax Mbuur soo ko paree Fatick soo ko paree Gandiaye soo ko paree Kaolack mhm. noonu la sarax mel sarax mooy gungee mhm. ñaan ci ci ci ci ci ñaan yàlla su sarax amee rek génnee rek soo ko defee rek lu la nit ki defar rek wala mu téye ci kure kurésam wala mu binda la rek yàlla day dogal lool soo ko deful nag day taxaw mu loolu mooy fekkoo fa kenn ngay jalaxe yoon yàlla mën na laa dimbale nga jaar ci yoon woowa dem de waaye mën ngaa jëne jàll weneen ñàll woo xamante ko waxee sama xel dina jëm ci ñi nga xam ne ñu ngi ci réew mi di ci yëngatu saa su nekk muy xaw a tàgga témbe waaye suñu mbokki Modou Modou duñ leen fàtte ndax sonn nañ ci saa su nekk ñu ngi ci yëngatu waaye seen xel du daj kenn ku ci mel ni yéen sëriñ si ni ndax yéen a faral di ci ñaan mbiram kayit lan ñu ciy wax waaw loolu de sant yàlla bu baax yàlla ñu ci may ay résultat waaye nag këyit damay faral di wax ne léeg-léeg nit wax ma ko fekk moom dafa am ay jafe-jafe ak réew mam ne mhm. ci wàllu police ba wala nangam duñ ko gaaw may te moom waxu la dara kayit rek la la wax te ñaan dafa bëri façon mhm. léegi nag nit ki wax la loolu nga defal ko ay say secret pare jox ko ko lu muy sangoo la wala lu muy takk wala lu muy raayu mu def ko pare te gisul dara mu ñëw woo la ne la man gisum mhm. fekk moom moo am problème mhm. ak réew ma su amee problème ak réew ma ci wàllu yoon daf lay wax ne la damaa am problème ak wàllu yoon yoon woowa maanaam police ba mos a dem mu jox la turu police police boobu nga jël turu police boobu ca la ngay liggéey da nga ko cay liggéey pour loolu mën a jàppandi ci waaye su fekkee waxu la dara nga bëgg def loolu te fekk digganteem ak yoon amoon mhm. da ngay ñaan ba sonn yàlla nag mooy nangu ñaan waaye nag résultat du ca gaaw a génn su fekkee ne nag yàlla dogal na musta am ak wàllu yoon ah alhamdulilah rabbil alamin am nañ ay secret yoo xam ne ci ay cangaay la ci alquran lañ koy jëlee mhm. ak ay garab yu ñuy def ci ut yuñ koy lim ci wal ko sunguf jox la ko nga boolante sunguf boobu ak alquran jooju xooj ko sangook ko mhm. ñu jox la loo xam ne nga takk ko incha allah bi hawlillahi wa quwwati soo dugalee këyit rek yàlla jox la ko même su fekkoon ne Sénégal nga ne bëgg a dem it mhm. soo ko defee it yàlla defalal la visa am na solo jërëjëf atia dama ñëw lu bokk ci liñ naan nopp wala boole ndax jamono ji léegi moo laaj da ngay gis benn famille sax ba ci njaboot ci biir kër yi dañuy xaw xaw a féewaloo wala waaye denclante da ngay gis coow li seen diggante du xaw a neex wala yan rattax ci gis lan nga ñu ciy waaw xam nga ñun Sénégal léegi <laughs> dama wax ne dañu xaw a sàggane suñu bopp dafa am benn kilifa gu mag gu jógee fii Dakar suma ko tuddoon ñu bari xam turam. Mhm. mu ñëw ba Kaolack fekk ma fa. seet si ma bi ma seet see fekk kër ga tubaarakalaaw njaboot gi fees soxna yi nàngam nit ñi di kaf mu ne man daal sëriñ bi bëgg naa ngeen waxal ñu sekkere lu tax ngeen yi boole ay nit surtout seeni soxna ñi bokk benn kër njaboot gi bokk te duñu am problème ñun munuñ ko soxna si day dëkk ci apartement bee kii dëkk fii wala kii dëkk ci kaw kii dëkk fii ñoom sax mën ñoo toog ay weer duñ gisante mu ne ma léegi ñun loolu ñi mënut yéen yan secret ngeen am ba mën a boolante ñëpp ci benn kër kii génnee ci néeg bi dugg ci néeg bi. Mm-hmm. ci laa ko wax ne ko ma ne Ah, aawo soo demoon fekk ko ci néegu ñaareel ñii toog di waxtaan nit nag nit warut boppam mm-hmm. am na secret yoo xam ne day boolante nit euh, suñu amee kër dafa am loo xam ne da danañ koy def suñ ko mm-hmm. defee ca lekkee kaay ba lañ koy def mm-hmm. wala ca naanee kaay ba fexe ca la ñuy naan njaboot gi ñëpp bokk ci naan su doon ci tey ci dox yi ci frigo dañuy seet bidon ndox ba ñuy def ko ca ku ca naan da ngeen juboo kenn mënu leen xaajale su dee ca la ñuy lekk la ca cin la lañ koy def ku bokk ci famille bi su jógee feneen lekk sa mënu leen a indil xay juboo rek incha allah bi xawlillahi wa quwwati yooyu ay noob la mhm. noob yooyu nag bokkut ak diggante góor ak jigéen diggante góor ak jigéen dafa am nuñ koy noobee yàlla ak ñuy suturaal alhamdulilah gëstu nañ maam alaaji abdoulaye ñas radiallahu anhu mi mu fi wax léegi maam alaaji ci dundam mhm. wax ne ne yàlla dimbale na ko mbooleem garab yi am sénégal mu xam ko ci diggante Gambie ak sénégal xamoon na garab gu nekk li xob bi di jariñ li ren bi di jariñ li xas mi di jariñ mhm. mu ne ba mu des benn garab muy garab gi ñuy wax sal guuf garab gi ñuy wax sal duuf yàlla dimbale na ko nag ci mujjug jamono moom alaaji Abdoulaye Niass mhm. laata muy génn àdduna wax na ne xam na njariñal sal duuf sal duuf sax njariñ loola moo wàcc ba ci ñun képp koo xamante ni yàlla danay dogal nga nekk ci géej di ci liggéey ci nappa ci nàngam ak nàngam mhm. suñ la ko defalee yàlla dana dogal doo ci géej incha allah bi awlilaa waaye nag ku jógee fee ñëw naan dañoo bëgg a dem Espagne ak koo defal loolu duñ la ko defal ndax ñoo loolu moom ànduñ ci moom moo tax jërëjëf sëriñ Ibrahima Niass aca ñu njëkkanteeku waxtu wi jàll ci yeneen ponk ci mbiram rab lan ngañ ci mën a wax waaw rab moom toujours dama koy wax rab bëri na dafa bëri façon dafa am ñoo xam ne dañoo yor jël maanaam semaine bu ne ñi daanu wala weer wu ne ñi daanu am ñoo xam ne bis bu ne ñi daanu am ñoo xam ne ñoom danga nga leen di gis rek ñu toog rek xulli seen bët yi mhm. wala mu jàpp seen cër yi ba duñ dem mhm. wala rab danay def sax nit ki mu yomba mer mhm. yor jalaal di mer rek am na ñoo xamante ni duñ wax ak kenn suñu wàccee dugg nañ seen tëj seen néeg su dee ay góor la wala jigéen rawatina góor ñi seen soxna indi leen ndox sax ñi ñi ñi ci kawam yu ci ëpp yu bari rab dafa bëri façon kenn ku nekk ak ni mu lay duggee dafa am rab yu baax am rab yu bon ndax rab euh, seytaan la mhm. euh, danay doon it seytaan boo xam ne comme nit lay comme kii lay doon musulman lay doon mhm. rabu rabu jullit su la dalee du la lor du la lor mukk mukk du la daanuloo du la yuuxuloo du la def waaye mën na laa nag merloo mhm. di la merloo di la tàngaloo ndax moom jullit la waaye rab boo xam ne yéeféer la comme dal ala kulli alim ñëpp danañ xam ne raba la daal da dox di waxtu wala ngay summeeku wala ngay def loo xamante ni kenn bëggu laa jur loolu nag kenn ku nekk ak na nga koy fajee mhm. ki xas ba daanu nag di daanu di nangam ak nangam ko su ñëwee moom du ma ko laal du ko faj ndax xam nga lu tax hmm. su ñëwee su ma ko fajee yàlla dimbale na ma ci am ay xam-xam mën naa koo faj waaye su ma ko fajee rek mhm. su ma koy faj rek ëllëg loolu mën na maa dal wala mu dal sama njaboot wala mu dal samay sët te moom wér na ba pare te loolu nag soo xasee àgg moom wallaahi alhamdulilah sukuru dootuma ko mën a laal ndax rab ci boppam mën naa yóbbee nit mu néew kattan maanaam du am góoram du taxate bu man ci yenn yi rab danay def loolu mhm. dana koy def jigéen dana koy def góor danay def su lay dugg si góor su dee góor la mu koy dugg si day toog di faral di gént su géntee nekk jigéen di ko di sëy moom muy sëy moom muy yëg su xëyee rek yeewu rek gis ay tubayam tooy mhm. wala ci biir gént bi su tubayam tooyee mu jóg su jógee rek làmb rek gis ne tubayam tooy na mhm. moom du xam sax lan moo ko def fekk dafa am rab buy sëy moom mhm. rab boobu nag su fekkee ne rab bu fiir la dina dem a dem a dem ba soo gisee benn jigéen nga bëgg a wax ak moom mën na laa xaajale ak moom moo tax nga dégg jiga góor wax xam daanaka moom pour mu takk jabar day séeneen mm-hmm. Mm-hmm. wala kum dem du wax ak moom moom moo koy préparé sa diggante moom fekkee tënga ko ba def ko nangam mën naa téye say sidit mm-hmm. terewul yaa ngi gént di sëy ak moom waaye ba pare te terewul yow nekkatoo góor nekkatoo góor rab dana koy def dana koy def it jigéen nekk ak moom muy sëy comme noonu muy gént moom tamit di sëy ay nit ay góor ñim xam wala ñoo xam ne xamu leen yow ngay nekk ak moom dana dem a dem a dem ba ci kanam daanaka sa àdduna góor gu ñëw waxtaan ak yow ñaari fan ñetti fan dangay toog rek gis goor gi dootul ñëwati mm-hmm. wala ngeen xuloo ci lu sew ci détail yu ñàkk fayda mm-hmm. yoo xam ne du def yooyu rab dana koy defal mm-hmm. ak koo xamante ni soo jublu foo jublu rek nit ñi di kii rab bëri na ay façon daal yoo xamante ni xajut ci kii bi tubaarkalla tarkal jërëjëf am na solo dama ñëw ci yeneen i ponk waaye du mën a yeneen ko ponk euh, parfois li ci ñoom laay boole euh, laaj ko mu di benn laaj lu mel ni ubbeeku ak euh, protection di kaaraange ak lii di mbiram nu mu tuddati sax ci kaaraange ubbeeku fayre ñett yooyu dama koy boole nan nga ci jëflante jaam yàlla nit ki sax man bala ma koo defal wàllu ubbeeku dama koy defal kaaraange par ndax nit soo xasut soo amul kaaraange nan ngay ubbeekoo hmm. maanaam ku amul wér nooy utee wër sa ki tëdd sa bi nii yow sa yaram bi di métti taloo taloo taloo liggéey hmm. euh, suñ la su su suñ la ñaanalee wërsëg foo jëm hmm. moo tax nit ki da nga koy utal wér da nga koy utal luy sang muslaay si cat ak ci làmmiñ ak ci lu xam ne seytaane la ba pare mhm. nga door di nag laal mbiru wërsëg moo tax man su ma lay jox cangaay mm. loolu mooy ànd dama naan la cangaay yii moom wàllu muslaay la jëkkee koo def yu ci ëpp nag yooyu guddi lañ koy faral di sangaay mhm. nga sangoo ko pare wala looy takk la nga pare dem su fekkee nag wàllu wërsëg dama ne la nag soo ko manee nag moom soo yeewoo fajara pare jant bi di commencé di génn jamono jooju sangoo ko nga génn dem mm. loo uti yàlla dana ci ànd moo jiitu ci wërsëg mhm. da ngay uti waaye nit ñi nag suñ ñëwee dañ naan man daa wërsëg laa bëgg wërsëg laa bëgg ku ku mënta mucc nooy ubbeekoo da ngay mucc ba pare mhm. door di ubbeeku nga xam ne nit ñi soo amee ubbeeku nag uti bayra bayra ah. mooy dolli wërsëg mhm. bayra moom ku ko am am wërsëg ku xas ba am wayra rek am wërsëg ndax foo tourné nit ñi topp la diw nga génn fii nit ñi naan ah, a ngi nii diw nii diw a ngi nii nit ñooñ di la seet loo dugg rek ñi ànd ci loo wax ñi ànd ci loo def ñi ànd ci léegi nag te yow su boobaa su dee commerce ngay def yàlla dana doxal commerce boobu su dee dangay ngay liggéey sa place ba nit ñi danañ daw ñëw si man diwa ma liggéeyal da ngay dégg bayra man de diw moo ay ñawal man diw laay defarloo sama lal diw laay defarloo nangam fekk bayra moo am ci moom mhm. nit ñi dem ci moom donte la sax xaj na am nañu ko dàq waaye bayra la leen ëpp tarka balaa ma tàggatoo jàll ci actualité euh, lan nga bëggoon a jàlle te fekk laaju ma la ko waaw a ah, sant yàlla ñun moom leen daal laa xam ne nit ñi ñuy wax nañ ko wax mhm. képp ku jóg indi sa soxla ci ñun di ñu ko ñaan mhm. duñ ci ñaan mhm. soo ñu fayoon ay milliards ñu ko def loo ñu mën di weexal it duñu ko def mhm. duñ def lu yàq mbokk duñ tas duñ duñ def loo xam ne day dof loo nit kenn ñi mu wuñu koo wax ku ku ñu ko wax sax ñu toroxal la diw dañoo bëgg mu dof diw dañoo bëgg mu ñàkk place ba muy liggéeyee bëgguñ mu dem nangam ak nangam loolu moom kenn du ma ko ñemewu ma koo wax waaye nag lépp loo xam ne maa ngi koy defal nit it nit di ci gis résultat du man wallahi yàlla la su yàlla rocci woon li ne ci man rek dara dootuma ko xam jërëjëf jërëjëf sëriñ Ibrahima ñas cant ak ngërëm ñeen na la waa Dakar People ñu ngi lay bàyyi kon nga tàggatoo beneen jëmmi jamono incha allah waaw di wax rek ne alhamdulilah xaj na mbokk yu bari lenn rek lañ may wax mhm. mooy sëñ Ibrahima moom ku xaw a naqadee jot la dëgg la nag xaw naa naqadee jot mhm. waaye lu tax ma naqadee jot mooy man awma secrétaire maanaam sama téléphone du nit moo koy wuyu wala nanga man sama téléphone soo ma woowee mhm. man ngay jot direct mhm. comme mhm. damay xat léeg-léeg daf may fekk ma am ay gandi di recevoir du ma la wuyu léeg-léeg may fekk may liggéey ci bind ci nangam am na fu mm. may toll duma la wuyu waaye nag su ma paree incha allahu rabbi aw laa xóoti dana la rappelé mm-hmm. rawatina nag nga envoyé ma message vocal su ma ko liiree su boobaa su fekkee ne woo nga ma jotoo ma yónnee ma whatsapp message vocal su boobaa suma ko liiree rek dinaa la toon su boobaa sa soxla lu ma ca man mm-hmm. danaa ko ca def lu ca faju nag du man ñii wax am na ñoo xam ne dañ naan sëñ Ibrahima daam du nit xanaa nangam loolu bëgguma baat boobu nit ñi di ko wax bëgguma jaay sama nit ñi dama jaay ba ma jaay sama bopp yàlla rocc ci man hmm. yàlla moo may may li ne ci man yàllaa ko ci def maa ngi ciy sant yàlla jaam ñi nañ ma ko ci sant yàlla waaye sëñ Ibrahima lu mu def loolu yàlla ànd ci lu mu def loxoom barkeel nangam ak nangam yooyu hmm. alhamdulilah rabbil alamin maa ngi sant yàlla daal ci yàlla ci soxlaay jaamu yàlla yi yàlla nga koy faj maa ngi gërëm ñëpp di leen gërëm ak képp ku ñuy seetaan Euh, di wax ne lu wax ji alhamdulilah lépp loo xam ne wax naa ko fi mu tuuse nit maanaam ma gaañ ko ci wax maa ngi koy jéggalu te xam ne sama gàtt xam-xam la lépp loo xam ne wax naa ko ci mu tegu ci siraatal mustaqim maa ngi koy sante subhanahu wa taala wa axiru daxwaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu